projet de loi bu bees ñu war yóbbu assemblée. waaw loolu lépp euh, fàggu nañ ko ci loi d'habilitation bi du Sénégal rek ko koy def ndax li ñu prévoirul ci budget bi te mu nekk ci loi xam ne loi moo ko war a euh, ci la war a jàll. Euh, xam ne li nga wax la loi rectificative wala leneen moo tax ñuy may c'est président de la République benn dérogation ci temps ci benn mbir boo xam ne bii mën na cee jël. ay décision yoo xam ni ci loi la aju loolu buñ ko defee rek yi ngay wax euh, dina ko mën a def bu baax a baax mais li am solo te am solo def naa ci dee débat bi te moom la ñu war a wax nit ñi mooy ñu jël ko mais sénégalais yi instant bi inquiétude bi ñu am mooy dañu ragal xaalis bi nga xamante ne dañ ko génnee pour mbirum Covid 19 bi ñu ko fajee yeneen soxla. non loolu mënuñu ko def loolu loolu alerte nañ ci euh, euh, ñu bëri bi ñu rencontré président de la république defe naa ne ci leader politique yi ak ñeneen foofu la ñu teg seen wax mooy nangu nañu mais na am transparence ci gestion bi te it na am compte rendu ñu xam ne lii lañ dajale woon. biñ ko dajalee it fii lañ ko def ëllëg pour mu bañ a indi coow ëllëg yaakaar naa ne loolu président moom mi premier sénégalais bi te woo ko defe naa dina veiller ci loolu pour que xaalis boobu ñu def ko fi ko tax a jóg mais li am solo te am solo daal mooy ñun ñëpp nañu xam ne amul ministre amul député amul milliardaire feebar bii bu ñàkk teggin la bu soxar la bu gaaw la te mu ngi ci sunu biir. kon kenn ku nekk bul wóolu sa morom man fi mu toll depuis temps yi yëpp même danaa dem Touba mais damay tëj sama kër damaa wat beneen bunt sax boo xam ne bi dama koo seelee xam ne ku ñëw da ngay ñëw ci barrière bi yem ci. mais doo dugg ci sama kër. parce que loolu la damaa bëgg a jël responsabilité. boo xam ne bi ku ne da nga xam ne dooni ci Moustapha laa ko jëlee mantam du ma ni ci diw laa ko jëlee kon na ñëpp def noonu buñ ko defee ba pare li docteur wax ñu respecté barrières yi euh, li ko assemblée nationale defee tey war koo defaat ci vote bu boobu bu ko ñëpp defee rek jàmm am ndax assemblée député yeeg am nañu mbubb yu set mhm. civilisé nañu waaye kenn nuyoowul sa morom dañoo ñëw dàndante mhm. ku nekk nuyoo na nga def ñu def sunu liggéey jël sunuy masque ku nekk dem kon maa ngi woo Sénégalais yi nag ku nekk boo mënee am masque del wut masque fi nga ko soxla boo mënee am gant wut ko produit bi it boo ko mënee am am ko li may conclure mooy euh, homme politique yëpp yi nga xam dañuy dem jënd eau de javel rangale ko ak kees yi saabu yi nañ ko bàyyi. Mhm. ndax koor lañu jëm xiif bi mën naa yokk feebar te nit ñi li docteur wax ñu bari bis bu ne dañuy xëy wute lu ñu dundee nañ ko jënd ceeb ak sukkar ak diw mhm. léegi di ko jox nit ñi ñi nga xam ne amuñu kàttan mhm.